waaw salaamaaleykum mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi waaw nañ profité ci période confinement bi yokk suñu xam-xam ci suñu diggante ak suñu borom yokk suñu xam-xam ci diine ndax eh, am nañ jotu jàng bu baax a baax a baax am nañ jotu gëstu itam ndax ñu bëree bëri ñi ngi ñaam njort sax ne boo seetloo jàngoro ji daa mel ni pexe yi na saxal diine na saxal pas-pas mi ngi ci biir waaw même bu ci pexe nekkul it ku xool jàngoro ji ni muy doxee ak limu dogal ci réew mi ndax mën naa ne am na dogal yu bari yuñ fi jël yoo xam ne jàngoro ji képp tax ku ci sàggan nag waaw daje ya nga daan jëlee pas-pas lu mel ni daje ajuma imam daan def xutba nga mën cee jaamu sa borom jëlee fa yëg-yëg jëlee fa pas-pas jëlee fa nangam ak nangam rawatina daayira yi nga xam ne ca nga daan lu bari di ci jëlee pas-pas itam daje jafe waaye nak même bu daje amul war nañoo mën a ba daja di am ci biir kër gi te mooy gëstuwaat alquranul karim gëstuwaat njàngaleem yonent bi gëstuwaat njàngaleem mag ñu baax ñi ba nga xam ne bu jàngoro bi jeexee it danañ ci mën a jëlee pas-pas boo xam ne bu dee dafa am pexe yu lal woon ci ginnaaw jàngoro ji ngir yoo njoxal pas-pas yi ci diine delloo ñu ginnaaw ci suñu lislaam su boobaa danañ échoué waa échoué boo xam ne foo ko nattu weesu na ko la ca desaat it mooy ku xool jàngoro ji wax dëgg yàlla bëri na lu yàlla bëggoon ci jamono dénk ko ay yonentam wax ko ci alquran ta xeyna na nit ñi dégguñu ko ci dajé guddi di caaxaan dajé guddi di fo dajaloo di nek ci lu yalla gërëmul way fi ne da melni ni jëlé jangoro ci dajé tax nañu bari bari gatan ñu ci lola waaye gis nga ñaka dajé daje pas-pasu daje yooyu ak pas-pasu moy yalla yooyu ak pas-pasu caaxaan yooyu nek ci yow ba légui manam fi ne corona bu ñu jeex na rek daal di lamuy la rek moy la la ko daan defloo mi ngi ci yow te bu fekkee tuub dellu ci yàlla am na xam ne kat lu yàlla tere moom won ko ginnaaw moo ca gën kenn ku nekk dafa war a profité ci jamono ji xam ne lam daan def ragalul jàngoro waaye dee la ragal waaw ragaluñ jàngoro dee lañ ragal dañoo yaakaar ne ku jàngoro ji dal mën ngaa ñàkk sa bakkan te kiy rayee du jàngoro ji yàllaay rey jàngoro ji mën na fee jaar ba jàll kum war a rey dana la rey kum warta rey mënu ci yow dara kum fi bàyyi it dee ngi ñëw innal mawta alladi tafiroona minhu fa innahu mulaqikum yàllaa ne dee mii ngeen di daw da ngeen di dajeek moom ku ragal corona ragal jabet ragal cancer du jëmmi sax ragal gi jàngoro ji waaye ragal a dee képp la ak ragal coono ragal fitna yàlla nee na nag bu fekkee bëgg ngaa dund dund gu teey nee na gëmal yàlla tey jëf lu baax waaw képp ku gëm yàlla tey jëf lu baax kooku xolam day fiix àddina xolam day féex àllaaxira kon lu ñu mën ci jamono ji ci tuub ci dellu ci suñu borom wéetal suñu borom gëstu suñu borom fexe ba sax ci am njàngaleem sax ci lim ñu saxloo taxam ne fa taw tawféex nekk luñ ko def doyul maa ngi ciy soññ sama bopp bu baax di ci soññ bépp mbokk taalibe ñu xam ne loolu mooy li ñu war bi fi mbas nekkee mooy li ñu war bu fi mbas nekkul ndax jaam moom bu dëppee ak boromam wàcc la waaye jaam bu wuuteeg boromam boo yeboo mu tiit boo yeboo mu boo yeboo mu jàq waaw jàngoro ji tëj na baar yu bari tëj na caaxaanukaay yu bari tëj na mooyukaay yàlla yu bari tëj na dajee caaxaan yu baree baree baree baree waaye nag ñam ca daan tere eh, ña fa daan dem tëju giñ tëju tey yàlla leen yedd yàlla leen yar ba bés bu jàngoro ji jeexee yi xanaa barabu caaxaan yooyu danañ fa rus a tegati seen tànk waaye gis nga taxaar na ñu tëj ay jàkke eh, tere daayira nangam ak nangam ak nangam ña nga xam ne ñoo daan dem ca jàkk ja ak jumaa ja dem ca daayira ya nañ fexe ba buñ toogee ci biir kër yi lañ daan wuti ci jàkka yi mën nañ koo amee ci kër yi waa yàlla mi doon fekk ci jàkk ji mi ngi ci kër gi waaw yàlla mi doon jaamu ci jàkk ji mi ngi ci kër gi te bu ngànt amee mën nañ koo jaamu ci biir kër gi bu wér mu nangul ñu ko itam waaw kon nag bu ci pexee nekkee wala jàngoro ji mën a gàllankoor pas-pas mën a yonjoxal pas-pas woyofal ko nañ fexe ba wax dëgg yàlla jàngoro ji nekk yeddaange nekk loo xam ne daf ñuy gën a xirtal gën ñoo nëq ci jeex tàkk ci suñu borom fexe dellu ci suñu borom te ñaan ko itam moom mi ñu ko nattoo yàlla na ko teggi ndax moo ci mën dara te bu ko bëggee du fanaan waaw innama amruhu iza arada shay'an an yaqulahu kun fa yakun rek kon daal nañ raxasu naam waaw nan wattandiku naam ku ci am masque takkal ku ci ma am gel euh, hydroalcoolique jëfandikoo waaye nag wàkkirlu ci yàlla te xam ne mooy kii musle waaw yal nañ ci yàlla musal musal ci suñu njaboot musal ñu ci ñun ñëpp mbokki jullit yi ak mbokk taalibe yi biir réew ak biti réew ñëpp mu musal leen ci waaye nag yal yàlla saxal ci lim gërëm buñ wéetee buñ wéetul ko ndax dee moom yàgg-yàgg daje rek waaw te booy dajeek moom ne yàlla na fekk nga sax ci lu yàlla gërëm lii daal lañ ne woon nañ ko barkeeloo ci mbiram jàngoro ji ñaan suñu borom teggil ñu natt bi ci barke yonent bi barke alxuraan barkeb Sëñ Tuubaa barkeb Cheikh Moussa wasalaamaaleykum wa rahmatullah